asalaamaaleykum wa asalaamaaleykum waa Sénégal gars yi maa ngi xombal mais gars yi appel bi may def nii da ngeen rey ba bëgg a dee waa ji ab xaritam lam mais xarit bi dafa yorul dara seen waa kër dañoo sonn léegi nag xarit bi toujours da koy woo naan ko bis ma yoroon ay million ba dimbale la loolu rek laa bëgg yor ay million ba dimbale la léegi damay woo xarit bi du petit carte gi gars yi déglu leen maa ngi moom kontaan naa ci abonné ak semi diaspora sopp bi moo leen may appel di wax ne nguur a diaspora sopp na may na ma teene fii ci Thiès gars yi déglu moom kontaan naa ci ak semi sëriñ jaabi borom si jaada kenn mom dama koy woné ko ab sëriñ tereex la damay dipoti carte gi du ko defee gars yi déglu maa rek ba xam lu wax gëm nako ko wala gëmu ko mom maa alaykum wa alaykum salam ma ngi ziaré na nga def sëñ bi ah ma ngi fi rek ku baax naka yëngu sant bax sëñ Modou job la soxla won Modou job wa sëñ Modou job yow la waaw kay yaa si jàmm. waaw maa ngi ci xam hélas. waaw xam naa ko. ah nga ko. xam naa waaw. waaw xam nga man damay ñaan damay wër di ñaan. Ah, léegi nag man si ngeen soxlaa dëkk isaan yi may wax maa ngi maa ngi xombal. ah léegi nag daa ñëw sama kër sànq. léegi ne yow yaa ko waxoon ne ko. waaw. parce que moom neen dafa sonn mu bëggoon ma ñaanal ko pour mu am wërsëg. waaw sol sonn na de El Hadj sonn na de. Hmm? sonn na trop kooku moom sëñ bi. Hmm. noo ko mën a dimbalee rek dimbale ko noonu. Hmm. waaw kooku sama waay la. ndeysaan. te El bi nga gis noonu moom bu daggee man maay naaj maam moom benn la. waaw léegi. waaw waaw dama koo xoolal waaye wërsëg daal la bërilewul. oh wërsëgam jeex na. waaw waaw bëri daa bërilewul wërsëg léegi. ndeysaan waaw. bi ma ko xoolee ba xool comme que yow li nga wax ci moom moo nekk ci yow. bi ma ko des xaare benn solution rek laa gis. mooy yow waaw mën naa koo defal. alhamdulilah waaw. léegi yow bi ma la xoolee yow gis naa ne yow am nga wërsëg bu bari. alhamdulilah. waaw <laughs> léegi nag. alhamdulilah man mën na maa jubbanti carte gi. waaw fexe ba yow sa wërsëg moom mu jot. dama ne. waaw sëñ mën na maa def loo xamante ni. waaw ñaar da ngeen weccoo place moom. mu jël sama wërsëg te moom wërsëgam jeex na. waaw moom moom wërsëgam bëreetul. ah non sëñ bi yow xoolaatal affaire bi nag moom wërsëgam jeex na man sama wërsëg jotaguma ci. ah nga bëgg a jël sama wërsëg jox ko ko encore te moom wërsëgam jeex na te fii comme sa wërsëg jeex da nga fiy jógee léegi moom mu jógee fi yóbbaale sama wërsëg sëñ bi loolu moom mënul nekk moom yow kay. Mhm. dimbalee ma leen rek. Mhm. man mun naa koo dimbali. Mhm. man mun naa koo dimbali man moom boo fexee man ma jot sama wërsëg man. jotaale wërsëgam moom. billaay barki sëñ Fallou dama koy dimbali man amoo problème boobu. sëñ bi. xam xaw man xaw man damaa yor course te samay wax du taxaw damay bañ nga def li nga def parti doo ko dimbale loolu laa bañ. moom mi ngi ni toog. ah baax na. génn naa. non non génn naa. gis mhm. gaa sonn na nag ñoom seen waa kër dañuy yor waan doog a lekk. Mhm. mais soxor ak iñaan moo ko bis boo ko joxoon sama wërsëg mille francs mënu ko ci man te man mën naa koo dimbali ndax dama koo ñeemantal mhm. dimbali ma rek ngir yàlla bu ma mënee jàppale nga jox ma sama wërsëg boole waale ak wërsëgam jox ko ko man dinaa ko yor yor seen waa kër bu neexee sax ñu dem ba gendarmerie seen bi ñu ñu signé ko man mën naa leen a yor waaw baax na ko dama leen yor waaw léegi baax ko baax ko léegi maa ngi ci waxtaan ak moom kon ne waaw dimbali ma rek waaw woowaat ma léegi waay gaay <laughs>